ayo bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Marietou fii ci saveur planetaire fas yéene tey incha allah dellu siwaat euh, ak yéen tey dañu fas yéene defar euh, benn ganaar boo xamante ne mi ngi ni aile poulet la ñu jël chicken wings yi euh, raxas nañ ko ba pare tege ko nele macha allah dafa am benn marinade boo xamante ne chef Aziz moo ko defaroon muy marinat passe partout wala dina nekk marinade dina nekk soos passe partout boobu nag incha allah moom la ñu fas yéene Euh, defar tay suñu euh, aile de poulet moy euh, aileron donc les ingrédients yi ñuy soxla pour suñu marinade ak sauce passe partout mën na nekk marinade mën na nekk sauce machallah dañuy soxla ay poivron donc am nañ fi bu vert am fi bu orange ak bu rouge poivron bo am mën nga ko jël persil chinois la coriandre cilantro lii nii dafa ne ñu dolli ci suñu touche personnelle céleri la maa ci sànni quelques feuilles de céleri Euh, ay baa ngi nele le lii ñuy gis ni oignon ver la lii gingembre la mooy ginger ginjeer baa ngoogu euh, lii nii citronnelle la citronnelle mooy lemongrass voilà dañ ko cop cop cop noonu euh, haché ko ba mu kii donc lemongrass baa ngi nii citronnelle suñu ginjeer suñu oignon ver mooy spring onion scallion suñu aay mi ngi ne suñu cilantro mi ngi nii persil chinois bi coriandre suñu céleri mi ngi nii aw euh, bismillah bismillah di dellu siwaat euh, nii ci suñu euh, marinadu passe-partout bi ba léegi donc lii poudre crevette la ku am crevette bu wow bi mën nga ko ci nokkasaale moom crevette bu wow bi def def mais man poudre bi laa fi am lii nii sama garlic plus la donc loolu mooy sama touche bopp bi ma ci sànni ak paprika bi voilà suma ma paprika bi ñaar itam sama touche bopp la moom recette am bi def na ci tuuti sucre donc man brown sugar bi laa jël mooy sucre roux lii sel la ak poivre donc ñu ngi fi poivre sel euh, benn kudd bu ndaw sucre euh, euh paprika ñu ngi fi ak suñu euh, garlic euh, plus bi mi ngi nii mooy euh, ay plus lii suñu poudre crevette la donc li ñuy def gis ngeen yi ngeen gis doomu soble baa ngi nii yii yëpp la ñuy boole rek ñëw ne ko réel ci suñu gënn gi nokkas ko ba mu tere bien daal di jël suñu pëndax mi it ne ko ci réel nokkas leen ba ñu toog di xoole benn place ñu jël nii suñu diwlin gis ngeen ni huile d'olive bi daal di ñëw nag mariner ko suñu këf kii ba bu jàpp forme incha allah ñu daal di ko ne rell ci biir fuur bi bàyyi ko foofu mu ñor fa ñu ngut nag léegi benn garniture bu ñu koy booleel dama ragal ne ceeb ak vermicelle laa koy booleel. ay mango gis ngeen nii ba tey ci suñu euh, chicken passe bi léegi gis nga yëpp lañuy jël ñoom ñëpp la ñuy jël rek ne leen rell ci machine bi gis ngeen ko nii mango gënn gi daal di ñëw nag incha allah nokkoos ko ba mu mokk ru mbax al mangoog bismillah bismillah mbokk yi bon nag mangoog gis ngeen ni suñu marinade bi pare na passe partout non passe partout sax moom dafa mujj neex <laughs> te sakkan macha allah gis ngeen une partie la ñuy defale li ci des nii mën nañ ko def ci sauce gis nga jël suñu huile d'olive lépp ci réel voilà bien bon daal di jaxase nag mariné bàyyi mu mariné yépp ba jàpp forme mun nañ ko bàyyi ni benn une heure deux heures de temps heure bi ñu koy dugal ci four bi ñu ne ko rendi ci four bi xam naa ku mu neexit <laughs> boo amee sa na daal di boyal rek jël sa grillage teg ko ci daal di ko fa wàcc voilà donc ñu euh, jaxase suñu passe-partout bi macha allah mi ngi yor xet bu neex diggante ñoom laaj beeg dinjeer bi oh macha allah ak euh, persil chinois bi mooy coriandre bi smells nice macha allah smells very very very very good voilà. donc recette bi gisuma mu def ci vinaigre wala yooyu moo tax defuma ko ci even though nee na ku mu neex nga def ci sa touche bopp sama touche mooy euh, paprika bi ma ci sànni ak euh, céleri bi ma ci sànni macha allah aywa mëngoog léegi dañ koy bàyyi mu noppal aywa mëngoog ne ko ci mëngoog suñu euh, chicken wings baa ngi nii passe partout marinade léegi gis nga teg nañ ko ci bool bi dugg ci fuur bi dañuy ñëw nii rek daal di ko xaw a tiital ni tuuti huile d'olive ci kaw rek mën ngoog macha allah voilà ku mu neex mën nga ko defee ak sa ay euh, cuisse de poulet lu ma la neexee rek euh, mais ñun moom tey incha allah wings yi lañu jël mooy elle euh, yi aile de poulet yi léegi dañuy ñëw nag taal nañu four bi préheat nañ ko dañuy ñëw ne ko réel ci biir four bi bàyyi leen foofu ñu jàpp forme su ko defee ñu jublu ci leneen incha allah. aw bismillah bismillah mbokk yi macha allah suñu euh, passe partout baa ngi nii pare na euh, macha allah macha allah it's looking beautiful looking beautiful beautiful macha allah mi ngi nii léegi finalement ceeb bi dañ ko bàyyi temps bi daf ñu një njatt dañu jël rek ay euh, baby pomme de terre sauté ko au beurre ak tuuti ay def ci lii suñu rosemary bi mooy romarin bi voilà mi ngi ne le donc ñu ñëw dressé suñu assiette mais ouh macha allah. waxuma leen saf gi mu saf ak xet gu neex gi muy xeeñ mi ngi rafet macha allah. ah bismillah mbokk yi kon nag ma ngoog lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire muy euh, marinadu chef Aziz euh, muy euh, passe partout bi mi ngi nii macha allah ci kaw aile de yi. suñu euh, chicken wings yi daal di sauté suñu pomme de terre ak bërëb ak tuuti persil ak euh, romarin euh, jël suñu càbbu persil rek ne ko réel ne ci ruq bi. voilà donc lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire di wax ne vidéo complète yi incha allah mi ngi ci youtube bi aywa bu leen fàttee subscribe ak it ngeen partagé mbir mi tey amee it aywa bismillah passe partout.